ñuy nuyu suñu mbokki jullit ñëpp ak suñu kilifa yi fi ñu ñooy di jàngee si daara ji di xam-xam ñu fas yéenee wane suñu xam-xam suñu fekk kon ñuy commencé ci Serigne Khadim Kébé Serigne Khadim Kébé dañoo bëgg nga leeral ci leen ci ay fekk Khadim Kébé ci day leeral lan xam ne dafa war a sujur xabla salaam fàtte ko ba mu ne ba nopp door koo fàttali bismillah jërëjëf si ci laaj am solo yooyu nga mën a exemple kuy julli kuy julli kuy julli ci mu def luy war a sujjóotu qabla qabala salaam mu fàtte ko ba sëlmal door koo fàttaliku kon day baax mu julli ko ci sansi bu fekkee jéemoon ko fàttalikoo ak fi mu sëlmalee dafa sori kon day baax mu julli ko wallahu alam jërëjëf si nga xam ne si leera yu am solo yi nga leeral kon ñu ñëw ci alabi topp muy Mame Laye Sylla Aliou Deme ñi ne na nga leeral sa laaj bi ko xool dégg kii day leeral lan mooy at te koo xam ne dafa war a sujjóot qabla salaam fàtte ko ba sën mën ba noppi. kuy julli ci biiru julli ga mu def li war a sujjóotu qabla salaam mu fàtte ko ba sën mën door koo fàttaliku kon da ngay sujjóotaat ci saase bu fekkee diir boobu fàttali ko. ak fi mu sëlmale dafa sori kon day baamu julli ko wallahu alam jërëjëf suñu xaay nga ci am solo yooyu nga leer kon ñi ñëw ci almis topp bi maam lay silla maam lay silla nga leeral ñu leen ci ay jot kii day laaj nee na dafa dégg ku war a sangu farata te sanguwul dafa am ay jaam yàlla yu koy tere ba keroog muy sangu may laaj yan xeeti jaam yàlla lañ tere ba keroog muy sangu. jërëjëf Serigne Diakhoum si laaj yi am xam ne dafa war a sangu farata te mu fàttali te mu jàpp dal ci moom mu dana xaraam moom mu taxawal benn julli moo xam farata la wala muy naafile wala muy wër xaamatul xaraam wala muy laal kaamil alxuraan ci loxoom wala ci yeneen du sañeen def jàng alxuraan wala muy jàng alxuraan ci di wala mu koy xool ak dugg si jàkka ak sax wallahu aalam kon nag ñu ñëw ci xale bi topp tudd Babé kii day laaj lan mooy àtte tabaski ak kan mooy ki ko war a sunna jërëjëf sunna la ci sunna yonente ki ñuy sàkku moom ngir mu taxawee sunna yooyu mooy ku ko man te mu am koom te du lor ci njëkk mu koy jëndee lu mel ne du ko gàllankoor yeneen yitte yu gën a lu mel ne du ko gàllankoor ci yeneen yitte yu gën a farata ku mel ni sunnaal nañu ci moom mu tëbës bi moo xam góor wala jigéen mag wala ndaw moo xam mu nekk ci ab tukki wala mu nekk ci ab dëkkam lu dul mu nekk ci xaj wallahu alam jërëjëf sëñ Babacar ci leeral am solo yooyu ngi leeral kon ñu ñëw di sëñ Moustapha Morone kii nee na dafa jóg ngir wuti xarum tëbës gi muy sàkku ku ko leeral yéen ayib moo tax gàtt du mat tëbës gi jërëjëf sëriñ Yankhoba Gueye ci laaj bu am solo boobu nga laaj gàtt yi nga xam ne moo gën a néew ay at ci gàtt yi ñu mooy ab sunni yi yi nag mooy xarum wala béy bu amee at mën naa tabaski bu dee ci nag bu amee ñetti at bu dugg ci atum ñeenteel bu dee ci gileem bu amee juróomi at bu dugg ci atum juróom-benneel gàtt yi ñuy tabaski nag dañ ciy moytandiku ay biir ba nga ñëw bi ci njëkk mooy gàtt bu pat wala muy soox soox bu bér wala muy yooy ba ëpp wala gàtt buñ xar am noppam xar bu yaatu wala mu wala buñ dagg am noppam lu dul mu nekk lu néew ba tey gàtt buñ dagg ak yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran soxna Ndeye Sarr ginnaaw bi ma la nuyoo ba pare man maa dikkoon di la laaj ndax bi nga mokkalee ba léegi yaa ngi ci daara ji di jàng xam boole kook di jàngale ndax yaa ngi ci boole waale liggéeyub jigéen waaw waaw soxna Ndeye Ndiaye ñu bari ci jigéen ñi dañoo yaakaar am njàng mënut a ànd ak liggéey ah kay mën nañoo ànd ndax lu nekk daa am wax ko wallaahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yow Sëriñ Fallu Mbay man dama doon laaj ndax dama seetlu ne ba mokkalee ci daara ji ak tay def na lu ëpp ñaari at ma lay laaj ndax boo continuer ci daara ji du la tardé ci boo bëggee continuer sa jàng ci école franco arabe wala boo bëggee gëstu sa xam-xamu diine ci yeneen bërëb. waaleykum salaam wa rahmatulah. rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Mouhamed Dia ci laaj yi am solo yooyu te soxla ay leeral waaye nag sunu kontina ci daara ji dafa am ay njariñ yu bari yu ci aju yu am solo te mooy gën a nafaraat alquraanul karim bi ñu fi andi woon ak kontina di beqi ba yegg ci bind kaamil alquraan boole koog sàmm boole koog boole koog di sàmm waale xam-xamu diina ci biir daara ji ànd ak boole di jàngale franco arab école boo xam ne juróom benni at yu def ci certificat moom ñetti at yu njëkk yi dina lay jàngal nga am certificat ndax da lay booleel jàng ci ñaari at mu defal la ko ci benn at kon ci ñetti at yi ci ngay am certificat yeneen ñetti at yi ci des bu njëkk bi booleel la sixième ak cinquième ñaari mujj kon la ko quatrième ak troisième nga am BFEM lu mel ne daaray Taysiirul Asiir bu sëriñ Suba Joob kon boo mokkalee alquraanul karim juróom benni at yi ngay defaat di nga ci am certificat ak pexem si ñàkkum xam-xam du tarde te mën nga fee bind kaamil boole koog sàmm sa mokkal wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu